bisimilah Baye Cheikh Baye Cheikh bisimilah bismillah bismillah أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم gannaaw bi ma santee yàlla doole ci li ma ko santoon julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant Seydi Ahmad Tijaani Sërif radiallahu anhu di sant suñ maam alaaji Abdoulaye Niass di sant xalifatu alaaji Mouhamad Niass di sant sama waajuru jigéen gannaaw bu loolu wee maa ngi def benn déclaration boo xam ne maa ngi ko jëmale ci mbooleem adduna bi maa maa ngi koy boole Sénégal yëpp ak bitim réew taalibe yi ak xarit yi ak soppe yi ci lenn loo xam ne tey moo indi wax ji ci jullim jumaam démb bi ak li xew ci biir jumaa ji ci jullim jumaa mi ba ci fii ci kaw loolu nag am na ci ñoo xam ne nuyu si woon nañ ma ci kaw ci loolu ci nuyu si boobu mule maa ngi ciy dégg ay wax yoo xam ne wax yooyu loolu dara def ci amul gis naa sax ci benn audio boo xam ne man maa ko def waaye la ma def ca audio ba ak la ma wax ca audio ba dañoo dem ba ca biir ñu soppi ko wala soppin woo xam ne na ma waxee ak nañ ko soppee loolu dara amu ci sama waxi démb na mooy sama waxi tey incha allah dama waxoon démb bañ demee police ba ñuy génn la ma waxoon ba may génn ne woon naa ne incha allah ajuma bii ñu ñëw du teree danañ julli yi na ma ko waxee woon ni noonu mooy amee kenn mënu maa téere jullit yi kenn mënu ñoo téere jullit yi bañ naa sax ba am na loo xam ne waxoon naa ko te loolu maa ngi ciy dellu nee naa leen aju neen jënd naa mbàjj sax ngir lan ëllëg bu mu jullee ñu ma pour fanaane ci kaso ndax man jalal na ma ko lislaam ëppal na ma ko li nga xam ne moo am ba des moo di ne réew mi ci boppam réewum lislaam la réew mi ci boppam réew la moo xam ne ñoo ko bokk réew na bu ko ñëpp bokkee dañoo won dañ ko war a mën a bokk te ñu tëral réew mi ci sart tëral réew mi ci yoon te bay yéen yi nga xam ne moom leen nit ñuy dox di wax di pelem pelem yi man am nañu wax ne jox nañu ma dix million loolu dara moo ci amut suñ ma joxoon dix millions it ku ko indi boo jaayee sa yaay it soo ma joxee dix millions yaa nga jaay sa yaat danaa ko lekk tudd tere li ma bëgg a def danaa ko def dem soo na yàlla képp koo xam ne jullit nga képp koo xam ne sénégalais nga walla koo xam ne yaa ngi nekk mbiti réew te xam ne jullit nga sa xel na dal la ma mébatoon wax ko du ma ci dellu gannaaw mukk ama en arrière ndax wax waxeet baaxut te kilifa lépp loo xam ne wax na ko loola na façon ay naa def ko loolu laay xamal àdduna bi yëpp di ko xamal samay bokk lépp li ma bëgg nag samay bokk nañ àndoo te bennoo te takka boole suñu loxo xàccandoor dóorandoor te it ku ci dégg wax na nga utiliser sa xel te bañ a utiliser utiliser sa xol mm-hmm. xel mooy nit xel lañuy jégloo waaye xol dafay indi mer te mer amul benn njëriñ comme que ànd nañ ànd nañ ci yàlla ànd ci yonent bi samay bokk ngir maa ngi li ñaan yéen ñëpp ñu bokk téye suñuy lamiñ taxandoo te yàlla tax sa téye péyib alaaji Abdoulaye Niass bi téye péyib xalifa alaaji Mouhamad Niass ñu àndoo muy sët muy doom muy sët sëtaat xam ne ñun amul lu muy péy bi man nag jàpp lu ma ci kenn ne dégg naa ko ñu wax ma ko rek ñu ma jiitoon wax nañ leen lu ko ëpp ku jiitu nag danañ la fakkatal ku jiitu nag danañ la bambax boo ko fekkee loo dégg mer nag damay wax ne loolu kon da nga ba tey wala danga nga xeex ba tey te xam nga ñëpp di leeral samay bokk dégg naa ñuy fab wayu ojom yooyu dégg naa sax ñuy ñuy dox di wax yoo xam ne kuñ ci na la waaw xëy ba sëriñ bi sédd na la moom la jox nañ ko nàngam man am na ci ñoo xam ne dégg naa lañ leen jox te ñu ne ñu nungum te ñëpp xam nañ jox naa man ne du ma tudd kenn nag gërëm nag di sant mbooleem xam xam ne sama doom nga di sant koo xam ne sama sët la sant naa ñëpp rawa naa ñoom alaaji amaat rawa naa Omar Niass ra mi nga xam ne moo moo amaat ñoo bokk benn ndey raw rawatina doomi alaaji Ibrahima ka mooy Mouhamad hélas ñoo ñoom ñoom maa leen di gërëm di leen wax yéen yéen supporters yi nga xam ne maa ngi yéen ñoo ànd ci terrain bi nañ fexee na terrain bi ñu gañe ko ajuma bi ñëw nag mooy mm-hmm. final bi final nag lu métti la final da nga gagné nga xam ne match yi na ne waaye na nañ football football boo xam ne nañ fab coupe bi incha allah it coupe bi yàlla nañ yox lii moo tax ma def audio bii leeral ko ko adduna bi ba ñëpp a xam ne ku ne jox nañ ma fukki million da ngay fenn waxu dëgg mm-hmm. man nag maa ngi waxale Macky Sall ne ko réew mi moomu ko mm-hmm. réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk mm-hmm. def dañ ko jiitaloon ne ko yow demal utiluñu indi luñu soo xamee demal waxee ñu indil ñu waaye gouvernement bu mu mën a doon sa baay moomu ko sa ndey moomu ko doonoo ko dañoo di booloo yàlla wuli suñ xel yi waaye wuli suñ xool yi jox la suñ carte yi nga falu du tax na nga jàpp nit ñi di doo di yeew te moom tey amul benn sañ-sañ boo xam ne yaa ngi ko def léegi nag alhamdulilah pay bi payem alaaji Abdoulaye Niass la payem alaaji Abdoulaye Niass la payem alaaji Abdoulaye ku ne jox na ma fukki million ku ko wax da ngay fen ak ak kooka kum kum ku mën a doon waaw du mu tudd nag diw du mu tudd kenn waaye am na ci lu ci bëri loo xam ne xel moo koy mottali incha allah loolu mooy ah, audio bi audio bi nag bëgg naa ñu tasaare ko ni nga xam ne noonu lañ ko tasaare woon ni ki démb ba ñëpp jotti ñu tasaare ko ñëpp jotti xarit yi jotti taalibe yi jotti soppi jotti ñi nga xam ne lislaam moo leen ñoo jotti parce que tugg lislaam ñorul na mun a jot koo xam ne nag alal moo la ñor su fekkee ne alal la tax nga dugg ci biir terrain bi ñu ànd di xeex boo yóbboo génn xam ne alal duñ ko àndee di ko xeexee su nañ xeex te ànd ak yàlla tax nañ xeex ànd ak yàlla nit samay bokk maa leen di ñaan audio bu ngeen mën a dégg rek bu mu leen naqadi audio bu ngeen dégg rek tànkam nu loo ko wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu